noonu am lañu waxoon jaalale ko ci yonent yàlla esayi bi mu naan yow réewum sabilon ak réewum naftali di yoonu géej gannaaw dexu yurdaan yow galile réewum ñi dul yawut xeet wa nekkoon ci lëndëm gis na leer gu mag ña dëkkoon ca réew ma dee tiim leer fenkal na leen booba yeesu tàmbali di waare naan